waaye internet bi yëpp dañuy laaj ñoom ñaar kan moo gën a mokkal alxuraan ma bëgg ñu ñëw fii ñoom ñaar ñu defal leen benn jongante boo xam ne du mat juróom minute incha allah ma tegal leen cent mille francs ci ñoom ñaar ku gañ a am ko kenn ki mooy Serigne Mamor Jaxate mi ngi fi ana Serigne Mor Jaxate Serigne Mor Jaxate Serigne Mor Jaxate jàngee Jurbel dëkk Touba anamu keneen ki mooy moom tamit jigéen la parité lay doon euh, soxna Anta dëkk Kaolack moom tamit na ñëw incha allah soxna Anta bismillah ok jërëjëf yàlla yàlla barke macha allah waaw incha allah jërëjëf waay aj cinq minutes cinq minutes acca kon ñoom ñaar dama leen di boole cent mille ki raw moo jël soixante dix mille yi ki nga xamante ne nii moom lañ raw mu daal di jël lan trente mil leer na acca ci góor laay tàmbale ñu dem ah acca a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim acca ñu dem ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim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 aca soxna Anta wadkur fil kitaabi Maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ما شاء الله ñu dem وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بارك الله فيك acca soxna Anta waaye fu may laaj waay acca a'uuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim qaala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى macha allah tabarakallah kon ñoom ñaar mënu ma leen a séparer kenn ku ne dama koy jox cinquante mille rek incha allah jëlal ay waay par ay doole nañ la soixante mille kon incha allah ñu def pause julli suñ ñëwee nag Mohamed Tine mooy ñëw ci pëjom bi waaye damay bëgg public bi sax ñoo koy laaj incha allah xool leen fa gën a runge ci alxuraan ñu laaj ko ngir ngeen gis mayug yàlla ci Mouhamed Tine incha allah kon benn 15 minutes rek ñu julli ñëwaat incha allah jërë ngeen jëf. incha allahu Mouhamed Tine mooy ki nga xamante ni moom la ñu parrainé bis bu soobee yàlla képp koo xam yaa ngi ci tribune bi aaya alxuraan bu la jaaxal rek.